moo tax xamee su ca lu wér demiinu yonen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk ne xiim وصل للحق من الحق المبين لي خادما بان وما ليس يبين وسل لي الحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلق لم ينساتي جالب النيران أو جالب العارين. ñu boole sëñ Abdoulaye Abdou Aliou ak Serigne Gueye mi. moo ko booleeg sëñ Abdoulaye mi ak Serigne Gueye mi. yónni leen fi yow. waaw ndax bisub Serigne bi. mooy màggalu daaru xudóos gi waaw nee ndax bisub sëriñ bi màgg ah. màggalu daaru xudóos gi waaw daaru xudóos ren daa tombé mu am téeméeri at waaw bi sëñ bi bi sëñ bi yéegee ak léegi hmm. waaw dafa toll si ren téeméeri at waaw sëñ sëñ sëñ bi wax nañ ko yaatal lool waaw Serigne Mountakha nag moo moo sant Serigne Ahmadou Mokhtar ne kon na ko yaatal na ko yaatal fépp ñu am yéene eh, yaatal ko Ndakaaru ak Louga ak Diourbel ñu am yéene yaatal ko Ndakaaru ak Louga waaye ak Njaaréem ñi nga xam ne fi la sëñ bi mujj feeñe si lépp nag mooy jàng téeméer at ginnaaw sëriñ bi lépp muy jàng téeméeri at yi gannaaw sëriñ bi lu mu ñu jural ak ñekk ñu indi gi ñu ko indi Touba lu mu jariñ Touba ak ak askan nga jullit yëpp nee lu mu jural ak indi gi ñu ko indi Touba lu mu jural ak lu mu jural askan bi ñi ànd ak ñi wutu sëñ bi di seen liggéey ñu feeñal ko ñu feeñal it njabootu sëriñ seen liggéey ak ñi àndoon ak moom di liggéey ak ñi àndoon ak sëriñ bi di liggéey ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall ku mel ni maam Cheikh kenn ku ne xam li mu doon ci yoon bi kenn ku nekk xam li mu doon ci yoon ndax mooy buntub sëriñ bi mooy buntub sëriñ bi eh, fukki fan ñaar fukki fan nag lañ ko war a màggal lañ ko war a def ca njaareem ñaar fukki fan yi nag lañ ko war a def ca njaareem waaye fukk ak juróom waaye fukk ak boo xoolee ci atum tubaab sax bis boobu la sëñ bi ñëwoon Touba. nee na boo xoolee ci tubaab bis boobu la sëriñ bi ñëwoon Touba. sëñ bi nañ ko jagleel maam Cheikh. sëriñ bi nañ ko jagleel maam Cheikh Ibrahima. nga xam ne moo ko moom. nga xam ne moo ko moom. ci wàllu sikkar lépp waaw. ci wàllu sikkar tudd yàlla ak taxaw ko bis bu lépp rek. moo tax mu ne ñëw yëgal ko sëñ bi. moo tax mu ne ñu ñëw ñëw yëgal si la ko. nga xam ne sa la. nga xam ne sa bis la. Baye Fall Baye Fall mën cee soññu mbooloo mépp mën cee soññu mbooloo yëpp waaw ba ñu xam ni noonu la ko sëñ bi bëggee ba ñu xam ne noonu la ko sëñ bi bëggee waaw ñuy sant nag bañ laay bañ laay kii rek ndax toogaay bi <laughs> waaw ñuy sant bañ la yàggal ndax toogaay bi waaw di ñaan suñu borom roof la ak wér nee na ñu ngi ñaan suñu borom roof la ak wér nga yàgg fi lool barke sëñ Tuubaa lool barke sëñ Tuubaa waaw ñu ngi feddali kóllëre bi bu baax ñu ngi feddali kóllëre bi nee na ñu ngi feddali kóllëre gi bu baax a baax li ñu doon ci maam Cheikh nee na moom li li mu doon ci maam Cheikh nga xam ne sax mënuñoo wax ci moom lu sori ne moom mënta wax sax ci maam Cheikh lu sori waaye maa ngi ànd sëñ Abdou Lahad waaye mi ngi ànd ak Serigne Abdoul Ahad ak Serigne Gueye ak Serigne Gueye eh, ñu ñëw wóoti fi sëñ Cheikh Mbacke ñu ñëw wóoti fi Serigne Cheikh Mbacke mu sëñ Abdoul Aziz xam ne moo jiite comité bi mu Serigne Abdoul Aziz nga xam ne moo jiite comité bi ak Serigne Ousmane sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak Serigne Ousmane moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak ñi ci ànd ñëpp ak ñi ci ànd ñëpp ñoo waroon na ànd ñëwanoo fii nee na ñoo waroon a ànd ñoom ñëpp ñëwandoo waaye dañoo aw ci beneen côté ñun ñu aw ci wet gii waaye ñoom dañoo aw ci genn wet ñoom ñu aw ci wet gii ñu ñëw fi nag ci ndigalu Baye Amadou Makhtar ñu ñëw fi nag ci ndigalu Cheikh Amadou Makhtar ak ndigalu Serigne Touba Cheikh Amadou Mountakha ak ndigalu Serigne Touba Cheikh Amadou Mountakha ndax bis bi ñor gum ko ñor ndax bis bi ñor gum ko ñor moom Cheikh Amadou Mountakha moom Cheikh Amadou Mountakha moo tax mu génn téeméeri million moo tax mu génn téeméeri million ni nañ ko waajale bis bi ni nañ ko waajale bis bi kon nag euh, loolu rek moo ñu fi andi. nee na moo leen indi. la ca war lépp def na ko. la lépp def na ko. waaye ku ne xam na maam Cheikh. ne xam na maam Cheikh. digganteem ak sëriñ bi. digganteem ak bi. ni mu toll ci sëriñ bi. ni toll ci sëriñ bi. ak li mu doon ci sëriñ bi. ak li mu doon ci sëriñ bi. ak ni mu wonee sëriñ bi. ak ni mu wonee sëriñ bi. nga xam ne mooy bindu sëriñ bi. moo tax ñu fa bis boobu jagleel ko ko. moo tax ñu fa bis boobu jagleel ko ko. di ñaan ñu àgg si jàmm di ñaan ñu àgg ci jàmm. te mel ni mu ko bëggee. te mel ni ko bëggee. ci barkeem. ci barkeem jërëjëf jërëjëf Mbacke. <laughs> si turu Serigne toog di Serigne Modou di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. jottali waaw sëñ bi nee sant na bu baax. waaw jottali ab nuyoo ak ub waaw mu jaar si si jëmm ju tedd ji ak ñi nga àndal. jëm ci kilifa yi nga xam ne ñoo ne sa kanam te ngeen ànd liggéey bi jàll si Cheikh Amadou Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Amadou Moustapha yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko jàll si Cheikh Amadou Mountakha mi moom yoon wi moom bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñu ngi sa sëñ bi nee na mi ngi sant bu baax di leen di dollee am mbégte waaye di dollee am yaakaar di feddali yaakaaram ak pas-pasam si jëmmi sëñ tubaa xam ne Seera moom la mu waxoon sëñ tubaa rek dana ko woon féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féete ak man mi la xam loolu foofu rek la Seera Faal masa ne jël léppam jox ko jëbbal naa sama boobu àddina ak àllaaxira euh, suñu laa daaxoon ku ku ku jaay lëf te yaakaar njëggal loolu génn sa loxo kon ba mu ko defee la wane ni moomatul jëmmam moomatul lu aju si jëmmam noonu la joxe woon boppam sëñ Tuubaa ni nga ko waxee léegi moo moo feeñal liggéey bi taxaw sëñ Tuubaa féete ko fa mu ko war a féete ba yoon wi tey jii képp ku si tàbbi te ñu bëgg nu tuddee la ab murit da ngay dox doxin wu mel noonee mooy joxe sa bopp jël si yaakaar yëpp sëñ Tuubaa du ku nuy roy ku nuy yaakaar la ku nuy liggéeyal la foofu la murit yëpp nekk kon nag sëriñ baa ngi sant di gërëm ci cër boobu yi nu ko jox fas yéene it noonu ko sëriñ bi bëggee mu ànd ko fas yéene taxawu ko ànd kook njabootu Seere Faal gépp soobee yàlla fukki fan ak juróom-ñeent lil 19 ci njaareem taxawaay bu fa war a am bàyyi ko si njabootu Seex Rafaal sëñ bi dina joxe ndigal njaboot gépp ñu def ko waaw bu soobee yàlla waaw sëñ bi dina joxe ndigal ñu taxawu ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee te diglee ko noonee incha allahu le 19 bu soow yàlla waaw waaw <laughs> waaw <laughs> sant tey sàkku nag sëriñ bi ñaanal ñaanal sëñ bi bu baax a baax ndax yéene yéene ji mu am si liggéey sëñ Tuubaa bii yéene ji kawe na lool bu bu koy wax sax nun ñii sax dañuy am jaaxle waaye dañoo xam yéeneem ni mu kawee si bëgg a liggéeyal sëñ tubaa ay mébétam fa mu àgg si liggéeyal sëriñ bi ah yéen nag mbàkke lépp ngi seen loxo ah ngeen ñaanal ko mbàkke na wér ba lii mu yanu bëgg koo àggale mu àggale ko fa mu ko bëgg a yóbbu waaw ah, jërëjëf mbàkke lam yanxuni daraw naari dunya waqtasani albaaxi bi xayri sunya malakani maa lam yabbi anni waxaadali baqaawo bil manni karaamati kitaabu man rafaani bi ilal jinaani musnafaani karaamati kitaabu man rafaani بلا الجنان مصنفا عني محا مماتا خنها نفوسا ولسوايا damam nga umpu na mindeef te um na kuy mindeef ku malaaka ya ko wóof ak yàlla ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar